wërngal këpp école yu bëri daal di am ay jafe-jafe ngir rek am ay cantine scolaire li ni mel du yombal xale yi seen dundin ci école yooyu rey mu mel ni rek jafe-jafe yi dafa daal di jéggi dayoo loolu waral ba ñoom ñi le daal di amal bile session de formation ak taskatu xibaar yi ngir rek ñu gën leen soññ ñu mën a gën a liggéey ci li ni mel. ñun dañu nekk di ñaax gouvernement bi surtout gouvernement bu bees bi ni ko fi mu ne suñuy doom. dañuy xëy dox ñetti kilomètre ñëw ca lekkool ba ñu ci bëri buñ ñëwee duñu ndékki te dañ fa nar a yendu duñu añ dooleel cantine scolaire yooyu la dina tax Sénégal daal di gis boppam bu baax a baax ci lépp lu jëm ci wàllum consommé local loole nag di gën a ubbi buntu ci luñ tubbee promotion du modèle économique sénégalais. boo jëlee téeméer bu ne ñaar fukk ak juróom dong ci ay école ñoo fi nekk tey yoo xam ne am na cantine scolaire ñu ne loolu tuuti na te ñun mbébét gi mooy ñu jël alimentation scolaire maanaam cantine scolaire fexe suñuy doom fépp fuñ mënta ne ci Sénégal mën a xëy dem lekkool yenn foofu daal di fay lekk lekk bu sell loo xam ne dina ko permettre mu mën a jàng. mu mel ni. bokk na si jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom la ñuy jànkonteel muy lépp lu jëm ci wàllum financement. pour que mu mën a antu il faut que gouvernement bi daal di ci def alal alal bu bëri parce que ba ñu seetee budget wu ministère de l'éducation nationale téeméer yoo jël fifteen mooy dem ci wàll lu ñuy dundalee suñu doom yi. dama rafetal rek daal di def 15 mais lu yées 15 la. dëkk yi ci àll yi. ak yeneen dëkk yi nga xamante ni ñoo daal di wër ndakaaru mel ni rek ñoom ñoo gën a soxla yooyu la cantine scolaire bokk na ci jafe-jafe yi. mooy seen situation sociale ak tamit coono yu ñuy jànkoonteel ngir rek daal di am koppar.